mais jimboor yi. mbay. mais jimboor yi <laughs> na namoon naa la. non maa la raw. ah oui. mais si loo nekk. waaw maa ngi nii kati kati gu dul jeex. mais jimboor li gars yi di wax dëgg la de. da ngaa hmm. da ngaa commencé am xaalis. commencé am xaalis comme nag. ah da ngaa commencé am xaalis de. non man mais man ku ma xam xam ni yàgg naa ci nii ah. ah. waaw <laughs> man dama am yaay ju baax ah. mère Fall. Ah. waaw. ah jimboor yi euh, dañoo gisoon bu njëkk bi ne doo ko feeñ. Mhm. gisoon da nga doon tolloo rek. Mm-hmm. da nga doon tolooree. Mm-hmm. musiciens yi ah mm-hmm. politique bii. mais gars yi nag nee nañ. léegi dañ ko commencé jënd di ko jox wéccet moo tax day day day day kii quoi du dootul tolloo la ci. kan lañ gis ma farak moom. ah nee nañ li nga commencé nga gën a faral. non mais su côté politique Sonko nga gën a jox bopp. non non non euh, non Macky Sall asafla Macky Sall nga gën a jox bopp. non non non non. wala ndéygeey la yóbbaale. non non non non man. bi may ñëw fii. coon moom dama ko indaale fépp. fekk. non boo demee sama profil whatsapp. coon mhm. sekk moo fa nekk. coon mhm. bi may xale ba léegi maa ngi ko bëgg. Mhm. n'est-ce pas. du dëgg mais pour far fii far fee amul man yoruma numéro waali. waali yorul sama numéro. duma dem këram. mais la may far. Ah. kër coon nag maa fa dem. ànd ak suñu journaliste yi. mais liggéeyoo liggéeyoo fa woon loo fa doon dara nga mm. demoon pour pour encaisser ji wala. non ah lu may encaisser. xoola waali. ñi koy gis yëpp. di ko commentaire yi. non commentaire dam leen di déglu. Mhm. mais xam nga lan la Wally moo ma fekk kër coon. Mhm. que xam nga loolu. dañ laa corrompre. non dama déedéet man kenn mënu ko. kan moo may album bi sax dégg naa da nga da nga ne bi la laajee si album bi kan moo nii nga ne waa <laughs> Wally moo fi nekk. non mais déglu ma wax la man coon sekk laay déglu ak waa Wally Seck moom laay déglu. Mhm. yeneen album yi du ma dem du ma leen sax déglu. wax bi jeex. ah doo déglu kenn ku dul waaj. déglu coon sekk laay déglu. Ah. ñeneen ñi dégluwuma leen sax bay xam lii neex na wala naqari na. coon sekk fala ak kele bi may yore mbay kele boobu. coon ah. moo ci nekk ba fees. coon ah. sekk à part coon mm. ay ñoom daal di bip son affaire yooyu. Mm. à lu dul lool dama du la dul seet si sax bay namm ci yow dara ba ñu ma leen nag ba ñu ma leen. Mm-hmm. mais man damay seet li ma mën a composé ma composé mm-hmm. loolu. Mm-hmm. ba pare waali bi muy demee football yi. dafa ñëw fekk ñoo coon sekk. moo ma fa fekk. Mhm. waali fekkuma ko fa moom moo ma fa fekk. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. liggéey mais lan xam nga luñ mënta lan moo tax Pape Diouf moom njëkk woote si si séance d'écoute nekkoo fa te yow ngay modéré lan moo tax demoo jël. non man duma dem di jël image. du ma jël katu image. ah lan moo tax kon ah kon non non déglu ma wax la xam nga coon seek. coon ngi dégg coon ma wax la dara. ñun daan moo ñu moo ñu moo ñu concerné. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais du waali de. Mm-hmm. orchestre bi. Mm-hmm. na dox. waaw. ku nekk kay ab sañ ngaa doxal sañ ngaa doxal sa euh, ki nga bëgg lim lim fi bàyyi. coon mooy sama woykat coon sekk. yaa ngi dégg man coon sekk rek laay déglu du ma déglu keneen. fi may dem di toog sax suñ buggee ma toog fa coon sekk lañuy teg mais waali amul lu may jox man. mus ngaa gis daf ma jox. këram ñu naan déet nga dem Gambie. déedéet déedéet dew ma këram de kër coon laa dem. Mm-hmm. ah mais da nga ne da nga ñëw moo tax kan non kër coon kër kër coon sek kër coon sek dama fay dem de. Ah. lu leer laa la wax. ah yàgg nga faa dem. xoola coon waali sax dafa baax di wax rek. Mm-hmm. mais xoola day wax mi ngi wax ak man fu ma miin. Mm-hmm. yaa ngi dégg fu ma miin. moom dama ko bàyyi mu wax noonu ba pare xoola ma wax la dara mm-hmm. ñii dóor Wally Seck ak ñii ñi nga xam ne dañuy def ay yoo xam ni mooy loolu mm-hmm. fu ñu ko gis dañuy taal seen téléphone yi di ànd ak moom di sina ba di am lu jël di wut si moom buzz ak affaire bu ma amee conseiller bu nice dama ko koy conseiller ah yow yaa ne kon gars yi dañ koy dóor kon bëgguñu ko ñu ko topp ñi koy topp. am na ñu fa ñëw ñu xam ne bëgguñu ko. am na ñu ko bëggul kon waali kon ñu koy topp influenceurs yi yeeg ñëpp kon bëgguñu ko. non dama ni am na mm-hmm. ñu ko bëggul. Mm-hmm. parce que nit ki boo ko bëggee. Mm-hmm. danga nga koy waxal te yàlla dong tax. demal nga laaj waali ba xam man bi mu jàppee sama loxo dafa ne ki ne ñii ñëppay ñëw te fi mu nekk ak man zéro mètre. moom du ñëw. du wala dégluwu leen wax bi. mais man da bu ma gisee lu baax dama ko koy conseiller mm-hmm. xoola Waly dañ ko war a conseiller lu rafet mm-hmm. Pape Diouf dañ ko war a conseiller lu rafet mm-hmm. Sidi Diop dañ leen war a conseiller lu rafet ñooñu bu ñu fi jógee ñan ñan la ñuy am ñun dont déglu woo leen mais sa doom mi ngi leen di déglu sa xarit mi ngi leen di déglu mu yow consal ki ngay cons te ñeneen ñi bu leen yéene ay man yéenewu ma kenn jàpp kenn kenn ay da ngay gis ñu naan ndéggee dina yàq ci mbóor rek man man kenn munu ma yàq man ak sama demunu dominu bopp laay dem mhm. man defuma émission chaque jour ma ne man damay jàngale defuma émission mhm. yaa ngi dégg mhm, su dara ñëwee damay xayma lan moo ci kii ma wax ko du ma xas nit ci deret du ma xas nit ci maam du ma xas nit ci dara mais palaato bi plateau la mais boo paree yaa ngi dégg coon sekk mooy sama woykat loolu moom boo may bëgg danga may bëgg ak coon boo may bañ bañ maa coon jeex na lim fi bàyyi nag lu si nar a rëkki rëggi rëngi rëngi mhm. ma xam ne mun naa ko defar dama koy defar mhm. ah ba tax na di nga defar waaye euh, ñu gis ni euh, dañ ne euh, tey joli bi si affaire si si en ah, Sidy Diop da nga see boycotté waxoo si benn yoon. te yow dañu dañu gis ah, cas bu am. dañ naan xaar ñu dem xool Jimbori yi lan lay wax. non xam nga man. ak lan moo si ko. non amul boycotté. Mm-hmm. kaa topp kaa bu ñu indee dara laaj ma dama siy wax. Mm-hmm. luñ ma laajul duma ko fa wax. ah moo tax tey ngi dégg non mais mais tey ji xam nga tey man affaire Sidi Diop. Mm-hmm. du ma si wax. mais Sidi Diop ak dem fële yaa ngi dégg dem Europe. jékki-jékki nit ñi dem fii ñii dem fee. Sidi Diop bu bi waa léegi dama lay def non dama lay jox benn junj bu ndaw mm-hmm. dama lay jox benn junj bu ndaw mm-hmm. daw orkes moom yàgg na fi mm-hmm. Sidi bi mu nekkee fii am na ñu xam ne dañ daan génn di ko waxal ak di ko xeexle ñooñu si boppam yow da leen gisati gis nga leen est am na ñu ko daan xeexle ak di uh-huh. ko waxal uh-huh. ñooñu. ah comme civil si civil problème non xaw ma du ma tudd tur non du ma tudd tur loolu non du ma ah. tudd xamal ma la wax man <laughs> yooyu. Ah. sama yoon nekku si quoi. Ah. man luñ ma laaj rek damay wax ah. luñ ma laajul nag damay noppi. ah lan moo tax lan moo sa duggoo si. dugg ma si comme naka. <laughs> duggoo si de. non man luñ ma la waaw yow yow mi yaa ngi fi. ah buñ ma si laajee damay wax. mais lan moo tax laaju leen si lan moo tax defu leen si carte carte bi te ngeen parce que Sénégal yëpp su kaa amee dañ naan Feeling Dakar dañuy dem. jaxaar la fi ñu jaxaar parce que yéen ñaar yéen yaa ngi dégg dañuy déglu lan moo tax waxu leen si mais léegi man léegi lan laay ah. wax lan laay wax si Sidi Diop ah. booy yi daw nañ waaw mais boo yooyu moo waral ak kaa bi lan moo waral kii mais dama ni hmm. orchestre hmm. leen hmm. li la war ñoom ñu def li leen war ah loolu loo bëgg a a <laughs> seen àq wala déedéet mais dama ne. soo deful li la war rek ñoom ñu def li leen war. waaw ñun ñun ñëpp xarit lañ mais buggu di jotee ku nekk tëddi sa ñoo ñu daw. ñoo yay daw. dañoo non seen intérêt bu nekkee ci daw dañuy daw. wala boog kon di nga gis te gis-gis lan ngay conseil booy yi ñu ñibbisi waat wala wala ñu toog. nit ñi bisi nañ seet li leen in li li nga xam ne mooy seen intérêt ñu def ko. mais yow da nga mais Djimbori eh, da nga war a wax booy nañ ñibbisi parce que yow nit ñi dañ lay déglu Djimbori. Ah, ma wax leen ñu ñibbisi. parce que loolu mooy intérêt yow. intérêt si non non xam nga ñoom déedéet liñ def seen xel ba daw xaw ma ko. Ah. yéen da ngeen a yéen da ngeen a jàpp ni ñoom dañoo daw. Ah, mais léegi toppkaa lan moo tax woowule booy ngeen wax ak ñoom lan moo tax ñu daw lan moo tax. non man xama nga toppkaa man liñ bind si kayit laaj ma si laay wax. man awma kii la ñuy dugal ak waa kee kuñ fa indi. ba teg la fa. ak koo doon laa wax de malaaka sax boo ko fa indee ma wax. Mm-hmm. lan si si dossier kii bi si Sidi Diop bi Sénégal mais dugaluñ ko ci. Uh-huh. buñ ko dugaloon kay ma wax ci. Ah, waxal rek dugal si buñ ko dugaloon dossier bi ne ma jimboori ah dañ fa am nii nii nii. Mm-hmm. mais damay wax sama xalaat man sama xalaat rek laay wax. Ah. mais xam nga artiste dem Europe daw. Mm-hmm. loolu du gan. bëri na ñu ñuy. mais lii dafa ëpp dix personnes lañ. no waa dix personnes ñom ñoo daw mom mhm. nga gis de 10 mhm. personnes nga gis ñu daw mhm. mais dafa daw dafa ah, daw dafa daw dalena gëna rek ñu daw looy conseil si di suko don conseil ni ni ni ni kan si di jox to gaay nee nañ amna ñu naan na def da def acoustique légui <laughs> am ñu naan non xam nga di jox xam nga Sidi Diop su ma ko don digal la la hay dem ah. su amé ay nitam mu gën leen japp rek jeex mu moytu tamit yenn ciow yi ko gaay di waxal parce que même booy wut ay nit. Mm-hmm. ay nit di wëlbati di waxaat yenn wax yi. Mm-hmm. dafa mel ni ngay gas ngay gas pax ñenn ñi di suul. Mm-hmm. bu mu xeeb yenn. kon da ngaa gis kon ni ñi ko doon waxal ñëpp kon tey ñoom ñoo am dëgg si kaw si kaw si bi. ah waa nduru na ko de. lu tax gaayee daw bu kaw neexoon bu suuf neexoon golo du yéeg di. <laughs> allo. ba Sall fan yee passé dafa am lu mu wax. ba tey génn génn na sànq def benn sortie bu ndaw di jubilé. ne li ma waxoon daaw ba tey. ba ba ba ren moom nag la gis Omaro tamit genn wax lolu keneen ak keneen genn wax lolu ak kii eh, guitariste bi tamit démb ñu jël ko ci ben live mu wax lolu kon ngay jappal ni ñom ñep wax nañ dëgg rek. Ah. yow. wala ah. <laughs> wuri di wuri wa jappal ni ñom ñep wax nañ dëgg rek. Ah. lolu la rek mbay. fi di job xamaluma ko dara man xamaluma ko dara. ah loolu moom non rumeur yi rek lay dégg. kii naan def na ma nii def na ma nii def na ma nii ku nekk naan def na ma nii waaw mais man xaw ma ko loolu ñuy wax tamit wóoruma mais bu dee mbooloo moom lu ñu wax a ah, xëy na li ñu wax dafa doon dëgg rek waaw dëgg yàlla kon daal su kuy su ma amul looy jox nga ni sii dina moytuwaat kii na xoolaat. su ma doon man maay moom. damay gën a defaru ba pare. moytu yenn détails yi. pour ñu ko koy waxal. te mu muy fexe ay àndi daawam mu téye leen man bu doon man noonu laay def. waaw. Ah. Ah. <laughs> waay ana ndéggee sa xarit. mi ngi ah. la waaye yow tamit. <laughs> a toog dem ba eh, eh, dégg naa tamit Macky Sall recevoir na fan yi jox la xaalis. non man Macky ñooñu duñ ma recevoir. Hmm. loolu moo hmm? pour ku ñuy recevoir affaire yooyu ay ji joxoon oto nag wala kii nga nga nga nga waaw mais ak otoom. Hmm. ah. jërëjëf jërëjëf Mbaye.